bokk na ci mbir ya maanaam ci yenn tajama yi ngay fekk nga fekk fa ay jëf yoo xam ne daanaka dañ da ngay xalaat ne ki ko doon def moom ab dof la moom wala ku bokkut ak xelam ku ànd ak xelam te loolu borom tax wax na ko ci biir téere bi waaye yemul ci wax na ko ci biir téere bi wax na ko ci ay conférence am ak yépp nit ñi di dégg di wax ne loolu ci karaamay mutasawifa yi la bokk moo di di xot te solo dara yére te loolu mi ngi ci biir tabaqaatul kubra waaw ñuy tarjamaal diw daan ne diw bokk na ci ay mbiram daal daana xutba te du sol dara yaramu neen lay xutba ci góor te ay nit toog di war laa maanaam loolu nit ki ko gis ñu liir ko ci téere moom kan la war a jàpp ne moo bind loolu abdul wahaabi shaaraani ponkal moomu boroom xam-xam bu mag boobu moom mooy bind loolu wala lu nit yokk ci biir téere bi la ayun minhuma ndax ñun ñun ñun ñu yamamaay ñii rek ñun ñi nga xam ne tekkiwuñ dara gëmuñu ne loolu lu war a mën a nekk la waxuñu luñ bind ci téere de est-ce que loolu mën naa nekk nit koo xam ne dafay xutba te solul dara dara dara di xutbaal nit ñi léegi su ko defee ñu au que ñu jàpp ne kii dafa dof ñu jàpp ne loolu ay karaama la est-ce que loolu lu mën a nekk la ci àdduna ah léegi ci sunu Sénégal gi est-ce que ku fi jàppoon ku fi fekkoon sa sëriñ muy xutba ci kaw minbar te sunu dara yow loolu dafay nekk karaama ci yow wala dangay jàpp ne kii def na bu yàgg yow yooyu nag bokk nekk na ci biir téere bi te loola eh, wax naa ne borom taq wax na ko ci conférence eh, bind na ko ci biir téere bi itam te ca téere bi la ko jëlee. bokk na ca yu nekk ci biir téere bi ay mbir yoo xam ne dafa wuute ak jikko ju baax ak ak ay teggini lislaam eh, yoo xam ne tamit eh, sharia da koy araamal waaw ci mbir yoo xam ne ay mbiri kàccoor la eh, ay mbir yu yu tegewul fenn la ci lislaam bokk na ci tamit ay mbir yoo xam ne yu nekk ci biir téere boobu yoo xam ne xel moo koy xel mati nii rek waaye loola mënul nekk maanaam dafa munta nekk maanaam aslan mooy nit koo xam ne maanaam kuñ ne dafa dugg ci biir ndox bi nee ba mu duggee ci biir ndox bi mu fëllee ci beneen réew réew boobu euh, fa la takk jabar am fa ay doom euh, ba doom yi màgg mu nuuraat aksi mu nuuraat ñëwaat lépp xamal ne ci une la de ci une bi la nuur ci ndox bi génnee ci beneen réew takk fa soxna ba doom ba am ci ay doom ba doom yu màgg mu nuuraat ñëwaat te loolu lépp ci benn minute bi la waaw yére yi fi ko tegoon bi doon sangu si moom wali yu boobu foofa la fekkaat yére yi solaat ko dem te ci diggante nuur boobu mu nuur dem dafay ba takk fi soxna ba am jabar ba am ay doom yu bari ba nuuraat ak siwaat jëlaat ay yéreem sangu dem yoonam maam yi bokk na ci karaama yi ñu tudd ci biir téere bi waaw Eh, ak yu baree bare bari yoo xam ne danga ko fekk ci biir téere bi ci ay mbir yu garaaw ñoom nag léegi suñ la bëggee wax dara dañ naan borom téere ba nee na boo demee ca tabaqaatu kubra nee na nanga mu ne te tabakaat nag moom la ñuy sukkandiku ci la ñëpp di sukkandiku ak ak ci ay xeeti fenn yoo xam ne dara du ci dëgg eh, ñu jël téere bi aj ko foofa ba pare du ñu wax fenn ne téere bi am na luñ ci yokk lu ci bokkul wala am na euh, loo xam ne borom téere ba waxu ko waaye dañ ko ko sosal ak yooyu yëpp seen yoon du ci nekk comme lu bon lañ doon wat suñu gisee loo xam ne xel nangu ko dañ koy jël askanale ko ci téere bi askanale ko borom askanele ko fa yëpp nga xam ne même su fekkoon ne lu wér la loolu làmbul mu mutasawifa yëpp ban benn téere lañ ko fekk te téere bi wax naa ne xaaju li mu wax moom borom taqdu asxaas ci téereem bi ci wax yoo xam ne wax ju juunu la ju ñaaw ci téere boobu la ko jëlee euh, mu xaq yooyu nag ñaar ñooñu ba tey ñooy wax ci tàmbalima téere bi ne das boobu di am nag ñaari mbir moo koy waral wala bokk ci ñaari côté rek lay mën a jóge wala mu jóge ci ñaari côté yëpp benn ci ñaari côté yi lay mën a jóge wala mu jóge ci ñaari côté yëpp ba ci njëkk mooy ñu jublu ci loolu yëkkati dayab wali yu wow ba tax ñu daati yokkal ci foofa ay nettali yoo xam ne wérut boroom téere ba wax ko moom mais ñeneen ñi ñëw ci gannaaw ñoo jël loola yokk ko ci biir tarjamab téere boobu masalan mooy tarjamaal ko xam ne sama maam la man ma jël man comme sama maam la ngir ma yokk garaatam ma yokk ci tarjama ji ko borom téere ba tarjamaal yeneeni wax yu garaaw yoo xam ne li ma ci jublu mooy yëkkati sama sama valeur maam ba tax ma wax loo xam ne eh, day dem ba génn ci cadre sax lu sharia daganal lu loolu benn la ci mbir yi ñaareel ba ñu jublu ci loola def ci sol ci ay mbir yoo xam ne mbir yu wuuteeg sharia la ngir ëllëg ñu mën a wax ne eh, mutasawifa yi ñoo gëm ndàngam wala ñoo wax nangam wala nangam ñaar yëpp a mën a nekk bee mën naa nekk bii mën naa nekk ñaar yëpp mën nañoo booloo tamit nekkatoo waaye li mën a am wala li wala bokk li am dëgg-dëgg moo di ne eh, li am ci téere bi ci lu juunoog sharia loolu jógewul ci borom téere bii di eh, Abdul Wahab Ash-Sha'rani jógewul tamit ci dëggi dëggi téere ba eh, di at-Tabaqaatul Kubra waaye mi ngi jóge ci ay loxo yoo xam ne ñoo def Eh, jëf ju ñaaw jooju ci biir téere bi te boroom xam-xam yi tarjamaal imaamu Shaaraani wax nañ loolu waaye waxuñu lool sax Shaaraani ci boppam bind na téere boo téere yoo xam ne wax na ci loolu ci biir eh, ñaari boroom xam yooyu nga xam ne nag ñoo liggéey liggéey bu rafet boobu ci téere bii di tabaqaatul kubra eh, gannaaw ba ñu paree ci loolu ñu indi ay wax yoo xam ne wax ne tasawuf ci boppam doxewul noonu waaye tasawuf mi ngi doxe ci alquran ak sunna te loolu boroom xam-xami tasawuf yi ñoo ko wax ñu indi lenn ci seeni wax loo xam ne dafay dooleel e, wax ji lu ci mel ne waxu Ibrahima Dasuuqi bi nga xam ne moo wax ne lépp loo xam ne dafa wuute ak yàlla ak yonent bi salaa salaam ak saaba yi ak taabiun yi ak téere yàlla bi xamal ne loolu baatil maanaam loolu ak caaxaan la ndax agrad tuurisul irad maanaam bëgg-bëgg àdduna yi dafay fànq nit wala daf koy e, dévier ci yoonu yàlla bi nit dafa war a jublu yàlla ak yonent bi kese naka noonu aliyil xawaas daf daan wax ne nit ki kenn du ko mën a boole ci waa tasawuf lu dul mu xam sharia dëgg dëgg xam xam lépp sharia wala boo xam lu baree bare bari ci sharia koo xam ne nag meloo noonu e, maanaam wa man jahila xukman waxidan minha saqata an darajati rijal maanaam pour ñu boole la ci nit yàlla dafay fekk na yow sharia dara réeru la ci su fekkee ne yow aslan xamoo luy sharia atte yàlla yi xamoo ci dara kooku kenn mënu laa boole ci nit tasaw yi loolu mooy waxi mu tasawufa yi ci boppam loolu la ñu wax naka noonu moom indi na euh, Muhammad Ibn Anaan Muhammad Anaan moo wax ne euh, yoonu tasawuf mi ngi aju ci topp alxuraan ak sunna alxuraan ak sunna demoon na sax ba dañ daan tere wala dañ daan sib nit ki di sangu fekk dafa def yaramu neen saani nit war naa àgg ci fegu ak euh, ormal yàlla yu ormal sharia ba am yu baree bare yoo xam ne da koy rus a def sax da koy rus a def ndax lépp teggin gi ñu am ci seen borom waa léegi kooku nga xam dafa am teggin ci boromam ba buy sangu sax dana xool nu muy nu nu nu mu koy lijjantee ba nga xam ne daal du du du du simmi yéreem yépp ba set wecc foofu la àgg ci teggin gi mu jox boromam kooku dana xutba ci kaw minbar te fekk dafa def yaram neen carrément di xutba ci nit ñi ak ñeneen ñoo xam ne keneen koo xam ne nekk na ci biir tabaxaat ku ñëw di takk benn soxna soxna si daal am na dumu xalaat ci ne kii daal du góor dëgg-dëgg wala nangam waa ji daati te kooku wali yu wu ñuy tarjamal la ci biir tabaxaat mu simmi yére mi summi ko ba set wecc ne ne sox ne kim bëgg a takk moom na ñëw mu làmb awraam ba xam moom eh, góor la wala di teg yu mel noonu maanaam loolu aslan nit dafa war a rus pour wax loolu loolu boo ko fekkee ci biir téere bi nag eh, da nga xam dëgg-dëgg ne lii mënul jóge ci borom xam-xam mënul jóge ci borom xam naka noonu abul xasan shaara shaadali abul xasan shaadali wax na ne su fekkee ne nit ki dafa am kashu yàlla won ko dara loola ko yàlla won noonu loola loola mu tuddee kashfu mu wuute ak alxuraan ak sunna nee nit ki dafa war a bàyyi la mu gis te jàpp ci alxuraan ak sunna ndax yàlla alxuraan ak sunna la def isma mais defu ko ci kashfu gi nit am ndax kashfu googa lu nekk mën na caa dugg loolu ñu ne lii nag mooy waxi boroom xam-xam yi ci géewub tasawuf bi kon lépp loo xam ne ci biir téere bi dañ ko cee fekk ñoom avant ñuy dugg ci téere bi lañ doon leeral loolu lépp lu ñu fekk ci téere bi wala lépp lu li liir ci téere bi ak yeneen téere tasawuf yi te loola mu liir mu méngook alxuraan ak sunna loola lu wér la su fekkee ne def caa fekk loo xam ne méngoowul ak alxuraan sunna daganul mu gëm loola waaye daganul tamit mu koy jëfe lii la ñoom ñaar lii lañu wax ba pare nag daate signé al muhaqiqaani docteur Ahmad Abdourahim Saayex ak al mustachar Tawfiq Ali Wahba door a dugg nag ci téere bi. Euh, wàllum das nag mooy ñu jël ay mbir yoo xam ne yu dul dëgg la wala yu safaanoo gëm-gëmu waaja dugal ko ci biir téereem ñi ko ci dugal nag ñaari mbir la comme li ñu waxoon mën na am. Euh, ñoo xam ne dañoo jàpp ne dugal googu mooy gën a may nit ki doole ba tax ñu sos sos yooyu dugal ko ci biir wax ji wala mu nekk ay mbir yoo xam ne euh, dafa wérut wérut ba pare waaye ay noonam ñoo jël def loolu loolu bu ñuy xool même ci tariqa tijaan euh, Sidi Sukari bi muy bind kashful xijaab Eh, te kashful xijaab mooy téere boo xam ne dafay dajale ñi nga xam ne ñoo gisee Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ci ay taalibeem te jële ci moom eh, wax na ci muqaddima bi ne léeg-léeg am na ñoo xam ne ci eh, sëti ki ma war a tarjamal la ñuy bokk dañ may indil ay xikaaya yoo xam ne ay nettali yoo xam ne man du ma ko mën a bind ci sama téere ndax amul benn cosaan buñ mën a tege pour loola mën a nekk lu wér ba tax du ko bind loolu nag su ma ko bindul am na ñoo xam ne mën nañ la cee mere mën nañ la cee mën nañ la cee bañ mën nañ la cee kii mën nañ la jàpp ne sax da wàññi dayob seeni kilifa comme ki ngay tarjamaal seen maam la te kooku dafa gis ak cheikh ñu lay indil ay nettali yoo xam ne nettali yoo xam ne yu wuuteeg sharia la wala yoo xam ne dara amu ci euh, wala yoo xam ne daanaka mënoo ko teg fenn ba mu wér euh, duma ko mën a bind léegi loolu nag nit mën na jë loolu nag du jeex du xaaj ci ñi nga xam ne chaaraan yi tarjamaal na leen ay nit ñoo xam ne xëy na siti lañu doon ñëw yokk ci dara ngir duufal seen seen seen seen maam wala book ñoo xam ne dañoo contre chaaraan yi ci boppam ñëw dugal ci wala ñoo xam ne dañoo contre tasawuf ci boppam ñëw dugal ay wax yoo xam ne wax yooyu dara du ci dëgg waxuma la du dëgg sax waaye dafa ménguwul ak yoon dafa ménguwul ak sharia te loolu chaaraan yi ci boppam mu siiwee ñu koy def moom te fekk mi ngi dund Eh, yemuñ ci di ko def waaye téere bii di tabaqaat ci boppam daf cee am daf cee am loolu nag yemul ci saaraani ci boppam waaye boroom xam-xam yiñ ko def mënees naa bind téere ci loolu kese mënees naa bind téere ci loolu kese boo demee ci eh, téere bu ñuy wax tasawuful islaami wala imaamu saaraani ku ñuy wax taaha abdul qadir sarur moom moo ko taalif wax na ci biir téere bi bi muy wax ci walu al imam sha'rani ak niñ koy niñ koy niñ ko soralee ci walu wow ak di sosal di bind ci tiirim wala di ca yok yo xam euh e, mom sore nak ak diggam loola e, dang nga fa fekk ci bir indi na ben ki mu ne ñaari mbir wala ñaari nit ñi ngi ni ay non la leen yalla yàlla da leen leen tok ay non yu bon Eh, bokk na ca jaafar saadiq jaafar saadiq chia chia ci ci kilifa ak chia yi la chia eh, ci boppam bind nañ ci moom lu bare bare bare askane la ko ci moom ngir duufal ko la waaye dara du ci dëkk al imaam ahmad ibni hanbal yenn xanaabila yi bind nañ ci moom ay wax yu jëm ci wàllu pas-pas ngir duufal ko ngir wone ne moom moo ko wax moo ko gëm moo ko nàngam te fekk Ahmad mosu ko wax waaye tamit mosu ko gëm loolu du jeex du xaaj ki nga xam ne moom mooy Ibn Hajar al-Haytami Ibn Hajar al-Haytami bind na benn téere boo xam ne mi ngi ko tuddee al-Fatawa al-Hadithiyya al-Fatawa al-Hadithiyya bari na lum ci wax ci pas-pasu Ahmad Ibn Hanbal loo xam ne ñi ngi ko koy le te fekk Ahmad mosu ko wax mosu ko gëm naka noonu al-Imam Ali Ibn Abi Talib kitaab. téere bu mat sëkk bu tudd Nahjul Balaaga ci boppam daj ko ko askanele Nahjul Balaaga ñëpp chia yëpp ko am ñëpp ko xam ñun am nañ ko tamit waaw Ali bin Abi ay xutab ay xutba moo ci nekk yoo xam ne Ali bin Abi Taalib moom moo ko wax moom moo ko moom moo ko bint Nahjul Balaaga boobu waxuma lenn ci téere bi de léppi téere bi nee nañ lu ñu sosal imaam Ali la waaye waxu ci dara loolu du jeex du xaaj Eh, naka noonu eh, fayruz abadi mi nga xam ne moo bind alqaamuus dictionnaire la ci arab bu mag a mag borom téere boobu di fayruz abadi diin moom wax na ne ay nit bind nañ ab téere boo dañ ko ko askanale moom dañ ko ko askanale te téere ba boo koy liir dafay manqué de respect lu bare bare bare kii nga xam ne moom mooy al imam abu xanifa te ci jamono jooj jamono ji muy dund moom la loola am téere bu mat sëkk nga xam ne léegi dañ naan ma faru abadi moo bind téere bi te moom aslan gisul téere bi xamu ko ba coow la bare nag ci lay doog a jot ci téere bi ngir mën a bind nag leneen loo xam ne mooy weddi loolu am na amoon na benn téere ci jamonoy al imam yi wala ci gannaawam tuuti ñu bind ko tuddee ko unwaanu ñu ko tuddee ko ar rahma fi tibbi wal xikma ñu askanale ko al imam suyuti te suyuti mosuute bind loolu saa di jegewu ko sax e, am na beneen téere bu tudd al imaama wa siyaasa ñi ngi ko askanale ibnu Qutayba aslan ibnu Qutayba mosul bind loolu loolu du jeex du xàcc même ci ci ci e, mutasawwifa yi daf ci am waaye noonu la amee tamit ci ñeneen ñi ci ibnul Qayyim ci ibnu Taymiya ci ñeneen ak ñeneen e, ñii ay téere bi la ñuy ci moom te téere bi binduñu ko euh, ñi téere bi dafay nekk ne moo ko bind waaye yokk nañ ci biir ay wax yoo xam ne bind ko loolu am na ci ibnul qayim ak ju saalikin bi mu bind nga xam ne am na ñu jóg sax di weddi lool di ko weddil ibnul qayim nangam ba nangam page nangam ba nangam langa nga fay fekk ibnul qayim wax ko wala nangam indi ay dalil indi ay maxtuutaat boole ngir wane ne lii aslan euh, kii nga xam ne mooy Ibnu Qayyim wax bokkul ci li mu bind moom ci déere bi noonu la amee ci tabaqaatul kubra nag ay wax yu baree baree bari yoo xam ne bu ñu ko méngalee ak maxtuutaat yi nga xam ne moom la ñu am dañuy fekk ne wax ji wérul jóge ci moom maanaam Sha'raani ci boppam bindu ko ci téere bi te loolu mu ngi ci biir téere bi ci tabaat yu bëree bëri waaye nag ñi ci def taxqiq ilmi dëgg-dëgg wuuteeg borom taqdir asxas ñoom danañu wone ne lii ak lii ak lii wérul jóge ci téere bi waaw avant ñu lay wax yooyu yëpp nag dañ laa waxoon ne loo fekk ci téere bi mu dëppook sharia loolu jël ko loo fekk ci téere bi te dëppoowul ak sharia xam na xamal ne dañ ko ca yokk xamal ne dañ ko ci yokk loolu du jeex ndax bari na ci biir téere bi ay ay tarjama yoo xam ne seen dat dat yi nga xam ne ca la wax ne nit ñi ci lañ faatu dat yooyu ci boppam moom ci boppam faatu na ba pare moom boroom téere bi am dat yoo xam ne biñ naan bim naan bim naan diw faatu na ci téere bi ci boppam dat ba mu dat maanaam fekk na dat bi nga xam ne ci la téere bi jeex faatug nit ki ci boppam dafa weesu dat boobu saa à ñu ne ñu tarjamaal nit ci biir téere bi ne nit kooku mu ngi faatu 2017 te téere bi bi muy jeex ñi ngi bind ne téere bi mu ngi jeex 2016 maanaam ñi ngi ci pare 2016 la téere bi pare maanaam téere bi pare na ba nit ñi di ko liir ba après at tegu ca nit ki door a nit ka nga xam ne moom lañ tarjamaal ci téere bi mu door a faatu loolu mooy waxi la loolu nag du jeex ci téere bi waaw loolu du jeex ci téere bi beneen mbir bi mooy euh, pour nga mën a wax ne euh, borom téere bi moo wax lii wala nga nangam dafa am gëstu bu war a am ci yow maanaam boo jisee dara ci téere da ngay méngale la njëkk mooy da ngay méngale borom téere bi ki bind ak wax ji est-ce que mën nañoo ànd maanaam soo nee diw tarjamaal na ko ci téere bi ba pare di ko ben mbir te lolou dafa bok ci karaba yi gën a ci mom modi ne euh daf daan sey ak jami manam jami yu yi manam affaire du góor jigen don sey ak ñi nga xamne ay jami yu lañ te góor la mom te wali yu la lolou nan la mën a manam lolou comparer ko bul comparer ko ak yu bi compareel borom téere bi mom ci bopam Abdul Wahab sha'rani ak wax joju est ce que Eh, nga xool nag ñi nga xam ne liir nañ téeréem ci jamono est-ce que am na ku mos a ŋàññi Abdul Wahab Sha'rani pour nga mën a xam nag est-ce que lii lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu yokkal lu ñu yokk la eh, sosal ko ko wala est-ce que moom loolu mën naa génnee ci làmmiñam wala ci mi am bind ko eh, nga xool tamit dafa bokk ci pour nga xam mbir yi nga xool lan la boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo saraa téere bi lan la ñu wax. ci téere boobu lan la ay taalibeem wax ci moom léegi yépp dafa war a am nag ngir nga mën a xam nag téere bi lu wér la wala wax ji ci biir téere bi lu wér la jóge ci moom wala déet waaye du caa gën lépp loo fekk ci ab téere rek wér na ndax am na téere yoo am na benn téere bu tudd yaasuubu sirri rabbaani maanaam ay manaqib Cheikh Ahmed Tidiane lañ ciy wax cheikh mo ne nangam mo ag ci martaba sàngam mo nangam te lañ ci wax ci téré bi yépp dara du ci dëgg yoo xam ne ki koy def noonu tariqa tijaan lay doon léegi nag ab taalibi tijaan bu dof bu gis loolu nag ñu naan la cheikh moo raw wali yu sàngam wala cheikh moo raw yonent yi nga gëmee ko noonu mooy yëfi dof moo lay bëgg a jàpp moo lay bëgg a jàpp e, léegi nag loola maanaam téere bi ci boppam kenn kenn mënu laa wax ne diwa ko taalif Ah, boo demee ci benn téere Sukayri bu tudd jinaayatul muntasibil yi wax na ca lu bare bare bare ci ay wax yoo xam dañ ko askanale tarix Tijaan te du dëgg ay téere yu ñu bind di ci wax jaloore yi Cheikh Ahmed Tidiane te téere bi ci bopp noonu cheikh ci bopp moo koy bind ndax su boobaa day yëkkati cheikh ci daraja boo xam ne mënul àgg foofu waaw ah, rawale koog yeeg moo kii wag maanaam nangam moo yegg ca daraja sàngam loo xam ne ab wali yu ci boppam du yegg ci loolu wala boog du àgg ca daraja jooju yépp mu yéege ko ca su ko defee dofu dofu dof dof bu ci kii rek daati daati gëm loolu su ko defee loolu sànq la nag loolu du jeex du xaaj ci biir boroom xam-xam yi ki nga xam ne mooy al imaamul Ghazali ci boppam eh, am na benn téere bu ñuy wax al madnunu ala gayri ahlihi loolu ab téere la bu ñu askane la ci imaamul Ghazali te ñi xam te bind ci imaamul Ghazali ñëpp wax nañ ne téere boobu du taalifam mosu ko bind mosu ko wax na ca nekk lépp dara du ci waxe al imaamul Ghazali te loolu boo demee ci kashfu kashfu zunun nga xam ne eh, daf dañ ko bind uniquement pour wax turu téere yi bu agsee ba ci téere boobu di almatnuunu ala gayri ahlihi dana wax ne subu kii wax na ci tabaqaat ne ibnu Salah nee na loolu man dañ ko askan la imaam Ghazali waaye imaam Ghazali waxul loolu te jegewu ko wax itam ànd ak lépp ñuy wax nag Ahmed Lo ci taqrir asxaas bi mu ñëwee euh, wax na ne euh, loolu gars yi dañoo dem ba xamuñu fu ñuy jaar rek ñu koy bëgg a di affaire yooyu mais jaaxle moo leen ci yóbbu daal léegi nag buñ dellusee ci tabakaatul kubra bu Sha'raani danañ fekk foofu ci karjama ay nit ñu bari ñoo xam ne maanaam booy xool liñ leen waxal euh, ak li am mënul ànd ak téere bi ci bopp mënul ànd maanaam am na ku ñuy wax ali al buxayri bi mu koy tarjamaal dafa wax ne mi ngi faatu ci shawal 953 953 mooy gannaaw bi téere bi pare ba mat at ak ñetti weer est-ce que loolu mën naa nekk tarjamaal na keneen tamit ku tudd ali al kaazu al nii ne mi ngi faatu ci 960 960 mooy bi téere bi bi ñu paree ci téere bi ndax téere bi 51 52 la pare léegi eh, bi ñu paree ci téere bi ba téere bi tasaaroo ba nit ñi tàmbali ko liir ba mat juróom-ñetti at ca la waa jañ tarjamaloon ca la war a faatu est-ce que mën naa nekk loolu tarjamatul kaaki ahmadul kaaki mom ci biir tarjamaam ci biir téere bi mi ngi faatu 15 rajab 52 15 rajab 952 mooy bis bi nga xam ne ci la téere bi pare si la borom téere bi bind ne maa ngi pare ci bindum téere bi 15 rajab 1952 te ci tarjama ba ci biir téere bi waa mi ngi faatu ci 15 rajab 52 mën naa nekk wala te nekk loolu nag jàppal ne du jeex du xaaj ci biir téere bi ndax téere bi ñaari jukki la mi ngi tarjamaal lu toll ci 337 nit dale ko ci Abu Bakr Siddiq ba wàcc ba ci ñim bu jëxam moom teg ci nag 87 ci ay nit ñoo xam ne moom jànge na ci ñooñu moom jànge na ci te léeg-léeg ñi nga xam ne moom jànge na ci ñooñu te ñooñu ay borom xam lañ ca ngay fekk euh, lu ci bari da nga ca fekk ay wax yu ñaaw wax yoo xam ne euh, maanaam mënul dëppoo ak sharia diw def na nangam ba mu defee nangam mu def nangam wax naa ko nangam mu wax ma nangam te fekk loolu lépp daanaka munta nekk ci boppam maanaam caaraani di ko wax waaye nag gars yi ñoom amuñu problème pour gëmee ko noonu ndax jàpp nañ ne muta sayu fa yépp ay kon lañ ah ñepp xamuñ sax luy diine c'est-à-dire ay dof lañ yoo xam ne xalwa ya ñuy dugg nangam nangam mooy yëngal seen bopp yi ba lu nekk sañ nañ koo gëm wala nangam ak nangam Euh, noonu lañ noonu noonu la ñu gëmee mutasawif yi amul benn borom xam nag boo xam ne euh, maanaam xaw nañ laa wekk wala xaw a fonk sam xel daan kii daal du xalaatee nii wala du waxee nii wala nangam nangam wala jomb na jomb na di àgg ci ci ci ci wàññeeku wala manqué manqué euh, di wax wax ju mel nii waaw kii nga xam ne moom moo moom mooy taxqiq lu ñu tuddee ak tabakaatu suxra بشعراني الشعران دي فهم طبقات الكبرى أم طبقات الصغرى طبقات الكبرى نك موم لي تودي لواقع الأنوار طبقات الصغرى نك كيكو تحقيق موم مو تحقيق فتوحات مو تحقيق مجموع الفتاوى أبو ابن تيمية موم عبد القادر أحمد عطاء موم بير بمي تحقيق تيري بوب نك أمنا بنتو بمشي تنك تديكو الدسو في كتب الشعراني آه، الدسو في كتب الشعراني mu wax ci biir téere bi ne imaam Sha'raani fi mu toll ci xam-xam eh, ci ci ci ponkal gi mu doon ci géewu boroom xam-xam yi ci jamonoom loolu waral na ay ay ay fett yu metti di ko jóge ci boor bu nekk ci boroom xam-xam yi ak ñi nga xam ne nit tasawuf lañ wala bokk ñuy woote woo tasawuf lañ te imaam imaam Shaaraani tëral yoon wi wane ne tasawuf du caaxaan du nangam nàngam nangam loolu day tax ñooñu nga xam ne moom eh, xeex naa ak ñoom ci wàllu tasawuf ñooñu dañ koy contre borom xam-xam yi mu jaamaar lool itam ngir tëral ne tasawuf mooy yoon wi baax ak nangam ak nangam ñooñu itam dañ koy contre su ko defee loolu dana ko jural ak nooneel ci ñi mu ñi mu jamonoonteel nooneel gën a la gën a rëy ci lañ ko def. mooy di ko sosal ci biir téeréem rawatina tabaqaatul kubra nii la ko waxee rawatina tabaqaatul kubra léegi nag suñ koy def dañuy dañuy suñ koy def dañuy jël ñi nga xam ne kenn xamu leen wala bokk ndax caaraani tarjamaal la ñoo xam ne bu leen waxul woon ci biir kii bi doo gis keneen ku leen tarjamaal waaw doo gis keneen ku leen tarjamaal moom ñi mu xam a bari li mu xam ci ñoom a bari ñi mu tarjamal ñëpp am na ci ñu baree bari ñoo xam ne ci tar ci tabaqaate nga leen fekk mënoo leen fekk feneen te ñoom ay mutasawifa lañ eh, eh, bu ñëwee ci ñooñu nga xam ne daanaka ñi leen xam bariwul ci lañ jël nag ay wax yu ñaaw daal koy jël yokk ko ci ñooñ bokk na ca ñu wax ne eh, diw maanaam koo xam ne ci nit yàlla yi la bokk wala nangam ak nangam daf daan kar ay mbaam di sëy ñoom wala boog mu kar nit ku war ci mbaam mu ne faaw mu wàcc mbaam mi pour moom mu seeyeg mbaam mi wala mu def karaama juy tax mbaam mi du jóge fi mu taxaw loolu est-ce que nit war na xalaat ne loolu war na nekk ci ab téere est-ce que nit war na xalaat ne nit ku fér ijji dana am xalaatu di bind loolu ci ab téere lu dul ne noonu nit ki kese moo mën a bind loolu ngir ñu jàpp ne eh, ngir ñu jàpp ak nooneel ci borom téere bi ci boppam wala ñu gëm ne borom téere bi tekkiwul dara lu ko neex lay bind euh, nit ku dof la wala nit ku nangam la yépp yu baree bari da ko fekk ci biir téere bi loolu nag li muy bari bari ci téere bi wala li muy am ci biir téere bi xamal ne lu baax li ci téere bee ko ëpp fuuf junni yoon yooyu ay benneti benneti wax la yu nekk ci biir téere bi dof yi nag bu ñu ñëwee ca loola la ñuy jël nag sukkandiku ngir wax ne mutasawif yi dañuy woote karaama karaama goo xam ne daanaka mooy yàlla la eh, et puis karaama goo xam ne diw diw wax nañ ko ci biir tabaxaat nee na day def nangam diw ca biir tabaxaat nee na day def nangam diw ca biir tabaxaat nee na day def nangam eh, léegi su ko defee nag ñu même su fekkoon ne loolu dëgg la kenn waru ko tatbiq ci mutasawif yépp lii mooy seen gëm-gëm waaye aslan nag léegi su fekkee ne du dëgg moom. ban taxawaay lañ war a am su fekkee ne loolu mënul méngoo ak boroom xam-xam bi bind téere bi ban taxawaay lañ ci war a am su fekkee ne dëgg moo ñu tax a jóg su fekkee ne boroom as asxaas lim wax ne dëgg ko tax a jóg su fekkee ne loolu dëgg la ban taxawaay la war a taxawee ci ci ci mbir yu mel nii est-ce que waru ci def taxqiq bi war wala dafa war a fekk ne lépp lu ñaaw rek fu mu ko fekk rek daf koy indi ak nu mu mën ci demee léegi nag su fekkee ne dafa am benn téere boo xam ne ñu ngi koy tuddee at tabaqaatul kubra bu al imaamu Sha'raani ñi ko mos a taxqiq ñëpp ku nekk danga def e, sujet bi da ko da ko traité mooy wàllum yokk gi am ci biir téere bi ku nekk danga ko wax wax ju ñaaw ji ñu askan la e, Sha'raani yi ci biir téere bi te dara du ci dëgg loola ku taxqiq téere bi ku nekk danga nga ci wax moo xam démb ak tey Eh, li ma am ci ay taxqiq ñëpp daanaka danañ bind loolu alkadibu wala addassu ala al imam shaarani fi tabaqaati al kubra loolu danañ ko wax eh, léegi nag yow nga mën a jël téere boobu mu nekk sa sa sa référence nga xam ne li ngay wax lépp fa nga ko jëlee ba àgg ci darajab nga koy abrégé di wax ne fu ma waxee taa ak kaaf nga xam ne li nga ko nar a wax ci téere bi kenn xamul nu mu toll ci ci ci lii laa ci jublu tabaqaatu kubra laa ci jublu doo mos wax benn wax boo xam da ko indi jële ko ci téere ba daan de wax ji du dëgg wala wax ji wérut wala boo ko méngaleeg maanaam personnalité eh, Abdul Wahab Sha'rani ak ak wax ji mënuñoo ànd wala wax ji ab jullit mënu koo wax wala nangam waaye danga koy indi ngir wone ne lii la gaa yi gëm lii mooy seen gëm-gëm foo dem lii la ñuy wax ak nangam ak nangam looloo naafiq kese moo koy def am na ku taxqiq téere bi mu wax ci ci tàmbalima téere bi tuddee ko at kitaabu tabaqaat wal kadibu ala cheikh ala cheikh rahimahullah wa radi anhu mu ne wa amma ma kudiba ala cheikh shaaraani في هذا الكتاب لواقح الأنوار في طبقات سادة الأخيار فكثير وقد مكننا الله من الاطلاع على تراجم نظيفة أثبتناها في نسختنا هذه وأشرنا إلى كل في موضعه من النسخة بغا خمنة تمت النسخة التي كتبها الشيخ بيده قد فقدت قد فقدت إيه، ñàkk ga ko nit ñi ñàkk nag moo waral sax nit mën a yokk ci téere bi ay wax yoo xam ne dara du ci dëgg ndax nusxa ba nga xam ne moom la nit ki bind borom téere bi moom la bindoon ci ci loxoom copie boobu def dafa amatul maanaam kenn da ko amut comme kenn amu ko nag kenn mënta muqaabala affaire bi kenn mënta muqaabala li nga mën a li nga mën a def mooy eh, jël eh, wax yoo xam ne munta ànd nga dindi ne lii munta nekk kom ku ñu tarjamaal ne mi ngi faatu 2017 te aslan borom téere bi 2017 la faatu 2016 euh, la pare ca téere ba ba pare loolu mënta nekk ah, ay wax yu ñu wax yoo xam ne nit ci boppam mënu ko xel mënu ko xalaat eh, ci ci ay wax yu ñaaw yoo xam ne ñu ngi koy askane nit di ko def karaama ci ñoom loola ca tabaqaatul kubra nga koy fekk kon loo ca fekk te ci loo xam ne lu wérut la eh, danga koy seppi sànni fële loo ci fekk te loola sharia man ko nangu alquran ak sunna taxaw ca su ko defee loola nga gëm ne lii moo méngoog boroom xam-xam boobu wante noonu tasawu fi nag ñoom loolu def leen a arrangé duñ junj fenn te boo waxee as sunna li abd abdullah ibnu ahmad ibnu hambal ñu ne la dafa am luñ ci yokk dafa am luñ ci kii taxaw ca temm ndax am na wax yu ñaaw yu ca am boo demee ci madaari ju saalikin noonu nga ko fekk boo demee ci yeneen téere ibnu taymiya mën nga faa fekk fu ci des danañ fu ci nekk danañ taxaw ne lii dañ koo sos wala lii dañ ko nàng wala wax ji méngoowul ak kii wante loola nag taxawaay boobu duñ ko am ci nit yi tasawuf fii waaw ah, dañuy wax ni lépp loo ca gis rek xamal ne loola mooy la am waaye tamit mooy la ñëpp gëm loolu moo ci gën a garaaw mooy la ñëpp gëm nga xam ne léegi benn téere bu ñuy wax tabaqaatul kubra téere boobu mooy taxaw taxawaayu yu mutasawifa yépp liñ mës a bind léegi su ko defee lépp loo ci gis jàppale ne murit ba ca Sénégal tijaan ba ca Sénégal mënees na ko àtte ci téere boobu am na ñoo xam ñu leen àtte ci téere bi xamuñu sa aslan xamuñu téere bi ci boppam euh, su ko defee loolu mooy loolu mooy loolu mooy taxawaay buñ doon am wala taxaw seetlu buñ doon def bu gàtt rek ci lii di tabaqaatul kubra xëy na liñ ci war a wax lépp daanaka waxuñu ca waxuñu ca kaaru loola wala dixième mu kaaru loolu euh, waxuñu ko ca waaye xëy na beneen yoon dana ñëw ñu gën ko yaatal ndax mënoon nañoo def benn par benn nangam wax nañ ko ci téere bi te loolu méngoowul ak nangam nga gis ay nu sax yu yu wuute ci biir téere bi maanaam ay copie yoo xam ne benn bokk ceeg sa morom boo demee tarjama kii euh, day nekk huit phrase nga dem ci beneen beneen beneen taba mu jox la ko ñaari safxa walla ñaari page loolu mënut a ànd tarjama keneen eh, eh, boo demee ci tarjama ahmadul bahlul bahlul fekk ne eh, maanaam neuf phrase la neuf maanaam neuf phrase neuf ligne la am na beneen maxtut boo xam ne ñetti safxa toll na ko tarjama bi loolu du jeex am na tarjama koo xam ne day ñëw ne la at mi la la faatu beneen tabaa ñu wax la beneen at boo xam ne ñaari at yi dañoo jegewul carrément beneen bi day fekk ne moo njëkk a faatu sax wala moo mujjee faatu ki nga xam ne mooy boroom téere bi te borom téere mooy wax ne faatu na e, yu dul jeex yooyu yëpp nag ay taxawaay lay laaj e, yu baree baree bari waaye e, li ma bëggoon rek mooy ñu xam boroom téere bi mooy kan ak téere boobu téere bu am solo la waaye am na ay mbir yoo xam ne mbir yuñ ca yokk la waral war a waral nag ab gëstu ci loola ngir mën a leerlu ci mbir yi nga xam ne moom moo am ci biir téere bi ci yoo xam ne jaaduwut waaye tamit ñu wanewaale fan la téere boobu tollu borom taqdisul ashxaas ndax ci téere boobu daanaka ci lay sukkandiku daanaka lu ëpp ci li muy wax lu ëpp ci li muy wax wax naa ne ñaari téere su amul woon taqdisul ashxaas daanaka mën naa mën naa raaf muy jawaahirul maani ak tabaqaatu kubra tabaqat al kubra bobu wax nañ ci lenn ci lañ ki xeyna danañ ko agalé waye danañ taxaw timit ci jawahirul maani insha Allah taala wa akhiru da'wana an bokk na ci mbir ya